Le groupe G8 Media, DigiClick, agence de communication, Charoy e TV, la chaîne d'information, 44 Event Pro, la chaîne événementielle, www.charoyinfo.net, le site d'information. Abonnez-vous. teg en place bu tudd Kaay Job dans commune muy programme boo nga xamante ni bi dafay war a former ay ndaw war leen a ci seen wàllu liggéey mu ci cadre entrepreneuriat donc tey ñu nekkoon fi ci euh, salle de délibération wu commune Diamaguène Sicap Mbao pour lancer projet bi yëgal nit ñi que projet bi dañ koy démarrer mais fii Diamaguène Sicap Mbao lañ ko lancer looloo doon tey jotaay. phase test bi wala boog première cohorte bi trente jeunes lay jël. Nous euh, lancer lancé appel à candidature bi jot nañu demande yu bëri yoo xam pratiquement fekkoon na mais euh, comme mënuñu woon jël ñëpp dañu jëloon 30 pour un début euh, bu première cohorte bi jeexee incha allah dinañu reprendre ak yeneen compte donc effectivement on va prendre 30 jours pour alors formation bi dafay nekk ay modules yoo xam ne day tourner ci écosystème entrepreneuriat d'abord la gestion de projet ci marketing digital ci communication ci communication à l'oral mais aussi ci intelligence financière donc entre autres module la yoo nga xamante ni lépp génnul entrepreneuriat. waaw déjà formation bi rek. Euh, rappeler ni du formation boo xamante ni bi dafay ñëw pour di jox nit ñi ay métier en fait. Euh, dañuy ñëw fekk ay jeunes yoo xamante ni bi dañu démarrer seen ay activité wala dañu bëgg a démarrer activité te xamuñu exactement amaana naka lañ koy defee. loolu donc ñun mooy suñu njëriñ mooy suñu rôle ci ñoom ñëw fexe ba li ñuy de wala li ñu bëgg a def mu professionnel te que àdduna mën ci jot bu fekkente ni bi nag à la fin de la formation capacité yi nga xamante ni bi ñoom moom lañ ci am mën na leen andil liggéey feneen loolu bénéfice lay doon mais projet bi je rappelle que du projet boo nga xamante ni bi dañuy ñëw former ay ndaw pour que bu ñu paree ñu wuti liggéey non mais dañu bëgg ñoom ñu tegal seen bopp seen ay liggéeyu bopp wala ñi nga xamante ni bi yor nañ seen liggéey ñu gën ko professionnaliser programme bi Kaay Job Dama commune la tudd ñun suñu yéene mooy def commune Sénégal yëpp mais moom dama juddoo daanaka commune Diamaguène Sicap Mbao yaroo fi màggee fi euh, yàlla def ki nga xamante ne bi tey moom la yàlla nattoo mu ñuy jiite mu di le maire l'honorable député Alioune Badara Bèye nekk suma mag nekk suma nijaay ma amoon yéene wu démarrer projet bi waxtaan ci ak suma waa équipe ñu nangul ma ko donc moom aussi bi ñu ñëwee exposé ko projet bi euh, mu gis ni am na njëriñ mu ne donc effectivement nangu na pour ñu lancer kii donc cible bi du lenn rek lu mooy commune boo dem ci Sénégal ay ndaw a ngi ndaw yooyu gis ci Sénégal soxla nañu ku leen dimbali ci seen wàllu liggéey donc loolu moo tax mais bu ñu jógee jàmm gën si Kambal ñu ngi ci yeneen commune incha allah. tey programme bi ñu lancé programme euh, la. Euh, programme mu entrepreneuriat la que jàpp nañ euh, fi Sénégal toll ak fi Afrique toll euh, li ñu am ci ay jeunes dafa xaw a bari 70 pour de la population nekk ay jeunes il va falloir que ñu dépasser les compétences transférées te xalaat xale yi donc xale yi nag comme ni ma koy faral di waxee fi ñu toll nii ci li leen di dégg yu metti la. Euh, mooy Barça wala Barça wala jël désert bi wala jël Nicaragua wala dem feneen parce que jàpp nañu amatuñu yaakaar fii ci réew mi donc benn maire mënatul taxaw di wax ni rek ma def ay compétence bi ma transféré ma taxaw lu ci xaar mais il faut nga jël ay initiative ci biir initiative yooyu nag ci pour utal xale yi liggéey ci lañu yàlla boole ak euh, Kaay Job Kaay Job bu nekk structure boo xamante ni jeunes yi fa nekk daf kenn koo xam dafa bokk ci ñun kenn koo xam dafa bokk ci man personnellement ba euh, que man xam nañ man acteur développement laa euh, su ma duggee ci politique xëy na histoire boo ko créé mais développement laa gën donc ci kaw loolu nag koo xam ni yàgg nañ liggéey lu ak fukki at ci wàllu développement mu am sérieux am technicité am euh, rigueur boo xam ne gis naa ko ci moom su bokkee ci structure bu mel ni Kaay Job day gën a dal sama xel oo delà li ma xamoon ci Kaay Job moo koy liggéey ci biir Sénégal ak ci biir àdduna bi donc muy plateforme bu am solo ah, ñu amoon yéene ñu euh, au delà des parce que nit ñi nee nañ ñu dañuy former mais format formation doyul financement kese aussi doyul Euh, jox nit aussi ay kayit kese doy il va falloir mu am ay coach am encadrement mu mun a xam li muy liggéey fan la koy mun a jaayee à travers euh, ci plateforme digitale yi mais au moins muy xam moom tamit en tant que entrepreneur ban comportement la war a am nan la mun a communiquer parce que booy jaay il faut nga mun a communiquer soo bëggee en ngay jaay ay produits wala ngay jaay ay services il faut nga am capacité boobu bu lay may nga mun a wax ak àddina bi pour ñu mun a jël boo nekkee entrepreneur aussi dafa ay euh, profil boo xam ne da ko war a am donc ñu jàpp ni kaay job dinañu may ñu complété euh, système boobu nga xam ni suñu jógee ci formation bi ci formalisation bi ak ci financement yi ñoom danañ am coach bu leen encadré pour ñu mun a euh, ñu mun a jaay ñu mun a nekk ay entrepreneur yoo xam ne li ñuy liggéey doo dem rek formé am diplôme toog sa kër te jariñoo woo ko ci dara wala nga dem am sa métier te jariñoo woo ko ci dara donc fi ñu toll dañu bëgg à partir de maintenant euh, ci 2024 bi xale bu amati benn formation wala nga am possibilité liggéey soo ñëwatee doo lambatu dañ la teg ci yoon bi nga xam ne ñu am koy jaar ñu tàmbali woon nag tàmbali bi je pense que pastas la mënuñu ko yaatal euh, kaay jom dama commune moo gisee initiative bu am solo depuis un an ñu ngi travaillé ak euh, waa kaay jom seen bopp pour mun ko mettre en place donc tey alhamdulilah yàlla indi nañu fi ñu mottali ko di ko doxal ak jeune boo xam ne ci jàmm gën ci Kambaaw la dëkk donc ku aussi euh, li ngay ut nga am ko ci sa biir kër balaa nga koy ut ci bitti donc ak Kaay Diop ak Barham chance boobu la ñu am. Euh, beneen fànn bi mooy ñun suñu vision globalement parce que Kaay Diop c'est un dispositif final qui complète li nga xam ne nii moom lañ tegoon en place mais li ñu teg en place. mooy créer di si Gambaaw transformé carrément le centre polyvalent centre du de formation mooy premier jalon bi nga créé en centre bu ko de formation ni créé fa ay métiers yo yoo xam xale bi su paree rek dina mun a dem liggéey muy métiers yi nga xam ne ci walu bâtiment Euh, mun naa wax électricité mun naa wax euh, lépp loo xam ci métier de l'environnement yi la mooy transformation plastique démantèlement euh, matériel électronique électronique yi muy jëm ci wàllu électricité yi wala jëm ci pavage xale yi ci métier yoo xam ne en trois mois mun nga nekk koo xam ne ngay doon di mais bu ñu ci formé ba pare te amuñu dispositif de coaching bi kaay job indi du sotti moo tax ñu ne balaa ñu dem démarrer centre bi danañ fexe ba en tout cas kaay job bi mun a démarrer Le groupe G8 Media, DigiClick, agence de communication, Charoui ITV, la chaîne d'information, 44 Event Pro, la chaîne événementielle, www.charouinfo.net, le site d'information. Abonnez-vous!